voulez-vous construire votre bâtiment avec des matériels de qualité waaw da ngeen a bëgg loo leen tabax ñu ne gongo choisissez QX et eh oui kenkaayri xéewal kenkaayri xéewal Fall et Fils dama ne lépp lu ngeen di war ci matériel de construction fii la fekk baax fer ciment bois peinture ak carreau kenkaayri xéewal QX ñoo ma ci doy lépp luy marque d'outil lépp luy matériel de construction kenkaayri QX ñoo ci mën nous sommes au Guédiawaye marché bu bees Dakar Sénégal ou appelez 77 11 80 ou 77 371 79 87 ou le 76 645 28 03 ou le 76 645 28 04 Kenkayri QX Kenkayri xewal le bon qualité au meilleur prix. salaamaaleykum salaamaaleykum. Eh, bàjjan. Eh, ah laaw la cat. bàjjan noo def. macha de yaa ngi nan. bàjjanu ko. macha def. ñu ngi koy sant yàlla baax. jàmm rek. baax ngi sant. alhamdulilah. jàmm ne. rafet na lii mooy lii mooy palmaan ah, ah palmaan waa ah, yii lay yii yii lay kii di rawante ah, gor dëgg koy sol waaw gor dëgg xam naa nag bàjjen mm-hmm. xam naa nag suñu tànk yi moom dana la jaaxal tey mm-hmm. Mm-hmm. waaw waaye nag nga xam tamit seytaane moom fa mu xajul lëj lay dugg te moom mii ko xool xam ne amul problème moom ñun ñuy ñëw sikk ñun xam nañu ñun suñu bopp yee mooy seytaane moom fa mu xajul lëj lay dugg mhm. te moom mii ku ko xool xam ne amul problème waaw te dañ naan seytaane sax bu ñëwee ci ñun lay dugg ndax ñun dañoo nooy bopp waaw day ñëw rek këf ñu yóbbu mhm. Mhm. bu loolu weesoo nag mm-hmm. ñu lay tuub di la jéggalu li nga xamante ni jotoon na fee jaar ñu ngi jéggalu bu wér mm. ah jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf mm-hmm. jéggal naa leen ndax jullit moom bu tooñee moroom jullitam mm-hmm. mu ñëw na ko jéggal ah kan jéggal rek moo ko war a kan jéggal naa leen bu baax a baax a baax ndax nag ginnaaw ay sax yu jàmm. jàmm rek waaw waaw ay jàmm. jàmm rek naa la. wallaay wallaay alhamdulilah. man lii nii ñottoon naa ko. Mhm. Mhm. waaw it bu loolu weesoo it. Mhm. ñu wax li nga xamante ni for nañ ko ci wéewum bëy. moom mii ku ko xool xam ni. femme politique sain la. ñu nit. ñu nekk. ay garçon politicien oui ay grand garçon waaw yu mag it mhm. ba tax na daal ñu xam ni comme gannaaw yaa ngi ci opposé mhm. ñu nit ñu nekk ci yàgg ci lool mosuñu cee gis avancement léegi ñu bëggoon jël sa doole ak suñu doole daal di koy boo mhm. boole ko ndax mbaay mi ku ko xool xam ni géwël la programme politique bu ne toj na ko politicien bu ne. Mhm. dugal na ko. xanaa sax la mu jëm mag nii sax a tax mu bàyyi tëgg. Mhm. waaw ñas mi it mhm. noonu. ndax tante gu ne defar na ko it base programme bu ne tante na ko waaw man nag moom xam naa ni sax <laughs> ku lim sa bopp doo jum man na moom wàllum sécurité gu ne yor naa ko it <laughs> wallaay wallaay politicien gu ne sécurité naa ko te jàmm rek lañ daan am <laughs> xam nga xam xam ak kii Pam Ndiaye. Pam Ndiaye waaw politicien boobu gaañu woon fan yële. xam nga lu mu daan ma woowee. <laughs> général général. wallaahi wallaahi. Mhm. gannaaw ba demee na noon nag. Mhm. ñu ñëwoon nag mhm. ngir fas na la jàppale. ci mbirum parti boobu nga nekk. Ah, eh, yéen li ngeen wax neex na ba ëpp de. ah waay ah waay eh, taxaw leen loolu dama siy def dara balaa ngeen eh, def. ah waay eh, déedéet waay ah. walaay eh jaru ko. ah rek pour. ah dañoo la la waay yow. yéen yow kenn la maa neex. bilaay yow mii bilaay. cum cum ni nga mën a mel. fa tubaar fa kàlla macha nag. Mm-hmm. dama ne jàmbaar léegi léegi jàmbaar jooni jooni. Mm-hmm. waaw waaw waaye dama ne tamit. Mm-hmm. soyu ma baabu mujj bi ngel bonataa te yow nag yaay bi ngel nii nga mën a mel. yow mbii femme de fer nga. yaa jar a àndal yow ku ànd ak yow du ko rucc. jamais de la ñun nag ñoo ngi ak tey ñoo ngi ak yow foo bëgg nag ñu jëm fa ak yow ñun diriñu suñu ndong fu nu dal yaa xam. ci tey mbaay tàmm na fépp fe fenn fi ñu nangu dal yow diriñu rek lu la saf rek def ko macha allah dëgg du neex de yii daal ah, ndeysaan da lay def de yii ne nii daal waaw baalu àq gi a dinaa neex waaw waaw daal yal na la yàlla jàppale toogee wuñ ko fi woon man de maa ngi ah, eh, eh, bégere xam nga nu ma koy ñaan la mhm. ministre de la femme. ministre ah, waaw waaw waaw naa ne. mën naa yor réew mi de. waaw naa ko ci. man de wax dëgg yàlla maa ngi yaakaaroon ni bu ma fi ñëwee naa fi fekk ay kuura ki ay kuddu yi nga xamante ne njàkk suñuy ndong yi waaye daal man moom xam ma lu ma lay ñaanal yàlla nga nekk madame de la députée <laughs> kontaan naa si yéen am mbégte si yéen bu baax nag wante xam nga yëf yi da ngeen maa fekk si woon ndax da ngeen maa fekk si yoon ni ma doon waaj a dem mm-hmm. ndax tey suñu parti bi dañu am réunion mm-hmm. sa réunion ba man nii maa ko war a jiite ah. di ko président fi ñu toll falaa jëm dëgg la wante daal xam naa ne lii ngeen def maa ngi leen xamal ne ni kontaan naa si bëgg naa si ndax kat politique Samine Mhm. booy ànd ak dangay ànd ak parti au pouvoir. non si si ndax boo liggéey nga am si dara. c'est mhm. sa lii ngeen ma def nii ngeen wax ma nii. Mhm. neex na ma trop. sa maa ngi ne di xamal leen. waaw boo yóbboo ngeen xam ne fu ma teg seen sama tànk bi seen tànk dina fa teg. jëm ah, na léegi nag beneen bi des. ñu ne ko léegi bis ni tey. heure bu la neex. organiser ko meeting. bu la neexee jàppal ni euh, vingt heures. jàpp trois heures. heure bu la neex. wallaay wallaay. wallaay wallaay wallaay wallaay wallaay wallaay ñu eh. sunoo am audience. billaay wallaay. soo defee loolu def lu rëy. dana ko def ko def. billaay. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. yow daal miti nii ngay dem sax. boo guddee. woo ñu ñëw sécurité ba ci kër. su la wax loolu. su la neexee sax defal soixante-dix heures. machine waaw kay ñëpp ñu accompagné la. ndeysaan këjë ko këjë ko bënis. ndeysaan en même waay. ndeysaan këjë ko protest waay. la soo en même de la vie waay. personne ne sait ça waay.